maa ngi tudd Ndeye Soxna Diagne Badji di nekk coordonnatrice jigéen Pastef commune de Suel tey la ñu jógee installé suñu biro communal bu Pastef mooy biro bi nga xamante moom dañ ko installer ñu wone ni ko pare nañ pour combat bi parce que dañoo gis ne Macky Sall dafa bëgg a arracher le désir le souhait des Sénégalais pour Ousmane Sonko baña a ci élection présidentielle ñu ne ko Macky Sall li nga bëgg a mënta jall li nga bëgg mënta jall parce que ñun les sénégalais ñun jigéen commune de Suel que commune de Suel pour nga mëna am li nga bëgg il faut nga jaar suñu kaw mais bala ngay jaar suñu kaw ñun dinañ résister jusqu'au bout ndax ñun Ousmane Sonko daf ñu jaral Ousmane Sonko moi l'espoir du peuple Ousmane Sonko moi l'espoir de la jeunesse kon mënoo ñu arracher loolu. di ñoo ne dossier bi nga bëgg par tous les moyens pour écarter le candidat du peuple le choix du peuple moi le président Ousmane Sonko. dossier bi nga xamante mom, xale bu jigéen boobu bi ngeen complété mu jël leader bi naan def sangam kan mënuma sax tudd lu mom parce que man j'ai de la pudeur mel ma comme mom duma ma tudd yeneen terme mom lu mu lu tudd bañ na sax yalla suñu borom bu la naré léral bo léré yalla dalay lay kundi Ousmane son képp koo xam dafa nit koyante mom ku labir la yalla dogon nak femme bi génn duma ma tudd sa turam mu setal suñu daru leader bi mu ne bokku ci takku ci laalew ci jegew ci ngeen continuer di entêté di bëgg a jël dossier boobu ngeen naan foog Ousmane Sonko mii il faut ñu fagagal ko il faut ñu écarter ko ci élection 2024 ma ne loolu du jàll ñun jigéen ñi loolu du jàll par tous les moyens par tous les moyens dinañ ko utiliser pour protéger le candidat du peuple qui est le président Ousmane Sonko. Nous n'allons pas accepter cette forfaiture que Macky Sall veut imposer aux Sénégalais contre la candidature de Ousmane Sonko ça ne passera pas. Ça ne passera pas car nous, les femmes de la commune de Suel, nous sommes debout contre cette forfaiture. Nous voulons dire au président Macky Sall qu'il faudra qu'il passe sur nos cadavres pour atteindre cet, euh, cet objectif. Car nous, les femmes, nous exaucerons notre droit, notre droit de résistance contre cette forfaiture. Je dis au président Macky Sall, le peuple a choisi le président Ousmane Sonko en 2024. Et je, et je vois le président de la République Macky Sall vous arracher ce choix porté sur le président Ousmane Sonko contre euh, le peuple. Nous disons non. Non et non. Nous disons non à cette, à forfaiture que le président Ousmane Sonko, le président Macky Sall veut nous imposer. Nous, les femmes du département de Bignona, les femmes du Fogny, du Blouf, de Kalounaï, en particulier les femmes de la commune de Suel. Nous disons au président Macky Sall, une élection au Sénégal sans, sans le président Ousmane Sonko est une honte. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour que le président Ousmane Sonko, comme le peuple le veut, qu'il soit le cinquième président du Sénégal. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Suelle. nous avons tateji pullo ñeka installé bureau ti euh, section communale yati suel yamanje bureau manje bukana kandum burom ansanama mañ fujuma folie di commune Suel fujuma folie di département ti Bignona bukan ka mañi ka gemé Ousmane Sonko bukan ka mañi ka gemé le projet ti Ousmane Sonko mukane de bire kilaw clavier installé ñam bire manje pare pare par tous les moyens manje be kané ma le président Ousmane Sonko alako akan candidat bampona lako le cinquième président de la République du Sénégal en 2024 wuli ku kuseka keti kumine ti suwel usman sonko a a abajo wuli ku kusek wuli ku kuseke kumine suwel leji lamb lambulemuk ka jebe gutey usman sonko mana kan a president tano san wono san wanji manjum wade mite senolim di mukana made mite se wuli ku kuseka mukana molili manji ngolen ji kan pour mala president usman sonko emite poyo dip kanoka jakku yenye sey par tous les moyens beka écarté ola jakuma kana candidate 2024 ulku seka panji kan parce que Ousmane Sonko na kankan ana manje jaat o wuli ku seka kati duniya burum wuli ku seka kati communauté sueji yakarum pour ma tilmu kula mole wuli ku seka parce que wuli ku seka wuli ji gagal wono san a sek wono san a sek jak jib jukuja ana manje kajom a jumja a president e ti sénégal bukana ko burom ku kamana ku nifana ku sekak anu sampano jukuru fuke folifo donc wuli jat di pare pare be ka le président de la république Macky Sall di équiper yo la yambo ka par tous les moyens pour beka écarter le candidat du peuple le choix de la jeunesse tek ma bokk les élections présidentielles je dis au président de la république et votre gouvernement ça ne se passera pas wanu mangum leetu jalla leetu jalla wulu kusay communauté leeji katimoror ñaa jalla sum jadi barka batamite